salaamaaleykum mbokk internet di lundi 2 janvier 2023 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi waaye laata loolee kuy gën ci page bi ca abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné bés kolos nga xam ne lu ñu dugal rek di nga bokk ci ñi koy njëkk a jot laata ñuy door de presse bi nag ñoo ngi ñaanal ñëpp atum jàmm ak salaam atum 2023 bii ñu dugg yàlla na dàq atum 2022 bii ñu génn yàlla defal ñu jàmm def ko ci réew mi def ko ci àdduna gépp kenn ku ne ci li ngay yëngu yàlla na nga ca yëg yokkute bu baax a baax te ci wàll wàllu tàggat yaram it at mii ñuy dugg dàq at mii ñu génn ndax vingt 2022 neexoon na lool waa yàlla na ko atum 2023 dàq ci wàllu tàggat yaram revue de presse bi Serigne Abdou salaam Mbacke moo leen koy may. Serigne Abdou Salam Mbacke borom alxuraan Serigne Abdou Salam Mbacke mi nga xam ne diggoog lool sunu borom bu lay seetal day mel ni ku jàkkaarloog seetu di la wax ci sa ay mbir mën bayre lool dalay defal bayre ba ku jàkkaarloog yow rek bëgg la fa saasa ubbeeku ba képp ku la gis dalay jox cofeel am na ay xeetu ndomb yoo xam ne lépp looy xëccoog doomu aadama rek yaay nekk ca kaw. ah Serigne Abdou Salam nag bàyyiwul benn yoon waa bitim yow mi nga ay kayit rek mooy sa yitte yow mi nga xam ne sa yoon da bëgg mu leer naññ dawal gaaw seeti sëriñ Abdou Salam Mbacke jëkkër nga bëgg sëriñ Abdou Salam daf la ciy defal ay ñaan yow mi bëgg soxna te muy sa yitte lool sëriñ Abdou Salam daf ciy def ay ñaan moom mii di sëriñ Abdou Salam nag nee na du ma bàyyi benn yoon ñi nga xam ne dañoo am feebar ndoxum siti hémorroïde wala sax nag ngóor a sonn la lool nee na benn pot laa lay jox meew nga ci def tàngal ba mu tàng jër daal di koy naan rek sa lépp faju képp koo xam ne bëgg nga sa ay aajo faju rek dawal gaaw nga daal di seeti Serigne Abdou Salam Mbacké Dakar Guédiawaye marché Sam numéro téléphone bi di 78 433 78 78 Serigne Abdou Salam Mbacké kéemaanu yàlla rek la ñu door revue de presse bi dooree ko sunu lamb lamb ji amoon ci réew mi démb le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang numéro 2

Boy Niang nag dafa tegal ndëgg sërëx Balla Gaye numéro 2 ba noppi teg ko gàccee ci lu ñaari minute ndax combat boobeekat benn minute la ak cinquante trois secondes ci la ko Boy Niang numéro 2 daan daan mag daan rakk loolu la journal bi xam xamle ndax Boy Niang nag ci Sa la mujjoon am ndam bi mu jugee ci Sa nag ñaari combat yi mu fi amaat defet la ca am muy digganteem ak Tapha ak digganteem ak Lac de numéro 2 bi mu daanee Sa Thiès ak tey jii mi ngi door amaat ndam ci ki ko am nag du ku ndaw muy Balla Gaye numéro 2 di mag ci Sa Thiès Boy Niang moomee sax ma ngay wax nee na ndaanaan mooy daan ndaanaan ndax Balla Gaye numéro 2 ndaanaan la kon man ndaanaan la la joojee nag bi mu jeexee El Hadji Papa Dieng ko ci Sud FM wax na ca combat boobee nee na Balla Gaye numéro deux Boy Niang da ko duma daan ko te jël bu rëy ko daan ñu jugee sunu làmb jël stade yéenekaay moom ñenn ci équipe nationale bi la fësal ca xët wu njëkk wa muy punkal yi Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Idrissa Gana Gueye ñanco Sadio Mané ñeenti ñi ngeen jis ci journal bi nag ren ji maanaam atum deux mille vingt deux li ñu football ñoom ñëpp ci ay match suñu ko boolee toll na ci deux cent onze match moo xam seeni club ak équipe nationale bu Sénégal kon ñii duñu ay jour yu ndaw ay punkal lañu ci réewu Sénégal ak ci club yu ñu nekk muy ñi ngeen di gis ci journal bi waaye journal bi tamit ñëw na ci CHAN bi nga xam ne ñoo ngi koy waajal mu war a am ci weer wii ñu nekk di amee ci réewu Algérie Pape Bouna Thiaw mi tàggat équipe national lu ko bi samedi la siiwal liste bi waaye liste boobee nag li ci bett ñëpp jaaxal ñëpp moo di Moulay Diagne di milieu de terrain di football ca jàmbaar kenn gisu ko ca liste boobee loolu nag jaaxal na ñëpp ndax milieu de terrain bu mag la waaye jàmbaar googee nag gone gii ñu naan Elimane wo woo nañu ko mu nga ca liste ba waaye Pape Bouna Thiaw yëkkati na kàddu wax nee na jamono ji bëgg-bëgg bi am moo di pool bi ma bokk ma jéem a génn maanaam ma jéem a qualifié dem ci beneen segg gi jamono ji ci loolu laay liggéey te loolu laa bëgg Pape Bouna Thiaw moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee stade bi yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay Kalidou kolibali la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom défenseur la mu ngay football ca Chelsea Chelsea googee nee na li mu fa bëgg moo di wane fa boppam ba ñëpp xam ne moo nga fa moom Kalidou Koulibaly démb nag ñoom dañ doon jàkkaarloo ak Nottingham Forest bu Cheikhou Kouyaté match boobee nag dañoo témboo kenn ku ne benn bal la dugal ci kangu moromam waaye jamono ji Kalidou Koulibaly li mu bëgg moo di wane boppam foofee ca Chelsea ba ñëpp xam ne moo nga foofu tey jii nag ñoo ngi xaar match bu neex ca deuxième division bu Angleterre ñu naan ko championship ñaari doomu Sénégal nag ñooy jàkkaarloo mooy Iliman Ndiaye ak Seyni Timothy Dieng Iliman Ndiaye mu ngay football ca Sheffield United bu dee Seyni Dieng ca QPR la nekk tey jii ñooy jàkkaarloo Seyni Dieng li mu bëgg moo di taxaw ca Kangya def clean sheet maanaam taxaw ca kange ba match ba jeex kenn du ko dugal bu dee Iliman Ndiaye moom li mu bëgg moo di dugal fukkeelu bitam ci deuxième division boobee waaye Iliman Ndiaye nee na da ko koy xañ kon match boobee tey jii dina tàng jër ci diggante ñaari doomu Sénégal yi. yu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Yogon Club ak waa Aston Villa la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa waaye ci Yogon Club la njëkk journal bi da koo laaj ne ko sa mercato jeex na wala jeexut mu ne man de dépense bu bari moom waxuma ci dara ndax loolee day niru yàq kon su ma sañoon ñu ko fii ndax am naa jour bu mag. muy Cody Gakpo kon soo moytuwul waa Liverpool bu jëndaat kenn ci weeru janvier bii ñu nekk loole yogoon club moo ko yëkkati waa Aston Villa tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom démb dañoo def jaloore Tottenham bu xawri kenn la ñu doon jàkkaar lool match boobee nag waa Tottenham dañu caa nërmelu ñaari bal ci dara la leen Aston Villa dóor ci fàttali doomu Sénégal bi di Pape Matar Sarr football na ca match boobee mu nekk matcham bu njëkk nag ca Premier League boobee waaye dañoo nërmeelu ndam loolee Aston Villa am tax na nam wàcc na ca ñeenteelu place ba jamono ji Manchester United moo fa nekk Tottenham ma nga ca juróomeelu place ba waaye Chelsea bu Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly moom ñoo ngi ci guut ndax démb dañu nul ak Nottingham Forest loolee tax na jamono ji ña nga ca juróom-ñetteelu place ba Liverpool sax moo leen jiitu kon ni ñuy doxee jamono ji doy na waar lool loolu la journal bi xam le ñu jugee Londres Angleterre wutali France fekk fa l'équipe wàllaas la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ngëm gëm bi de ci biir la nekk Lens googee jamono jii ñu ngay doxal ci Ligue 1 bu France démb Paris la ñu dalal dóor ko ñetti bal ci benn défaite boobee Paris am nag mooy défaite bu njëkk ci saison bii ñu nekk moo xam Ligue 1 la Ligue des champions ak yeneen compétition yépp Paris mi ngi door a dégg muñal waaye Lens nag kenn du moom ndax jamono jii ma ngay wane boppam ndam loolee mu am tax na jamono ji ñeenti poñ képp moo ko téqale ak Paris Lens jamono ji lu Paris wàqi dañu koy suul rawatina démb bi ñuy loo nëbbu leen bal bi Kylian Mbappé gisul dara Lionel Messi nekk fa woon ak Neymar Junior waaye Paris dafa ànd ak Christophe Galtier mërmeelu ca Lens ñu jugee France wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay journal bi nag ralli la fësal ca xët wu njëkk wa waaye ñëw na ci doomu Croatie bi di Luka Modric Modric nag jamono ji mi ngi xaar waa Real de Madrid ndax kat noppi na ngir yokk contrat am doxal ca club boobee di Real de Madrid waaye jamono jii nag club yu bëri nekk ca Amérique ñoo ngi koy bàyyi xel ngir jënd ko yóbbu ko foofee mu doxal waaye doomu Croatie bi li mu bëgg moo di toog ca Real de Madrid xaatim fa beneen contrat doxal te wa waa Real de Madrid ñoo ngi koy càmbar ngir yokkal ko beneen at mu toog foofee doxal ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Bellingham le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa réunion pour Bellingham Borussia Dortmund semaine bii ñu dina dinañu woote réunion toog ak waa kër gone gi waxtaanee ëllëgëm mu xamal leen day jógee ca club boobee am day toog wéyal ca Dortmund waa Dortmund nag xam nañu xel ne gone gi li ci xel mi moo di soppi xar kanam dem wuti beneen club waaye seen wareef moo di woote réunion toog waxtaanee ëllëgëm waaye nee nañu ko nag su fekkee da bëgg a dem buntu bi tëjaluñu la ko waaye duñu la wanteer li ñuy laaj ci yow moo di cent millions d'euros ku ko am boo ñëwee ñu jaay la ko waaye dina ànd ak bonus olof di ko wax buuñaa bonus boobee mi ngi toll ci quarante millions d'euros soo boolee lépp day nekk cent quarante millions d'euros kon loolee ku ko amul bu jëlee Bellingham ca Borussia Dortmund loolu la journal bi xam le waaye mercato juin nag ci janvier bii la ñu koy door ndax am na ñoo xam ne seen contrat juróom benn weer képp ci des bu leen neexee nag ñu def pré contrat maanaam xaatim contrat boo xam ne dañ koy xaatim ak benn club moo xam club ba ñu nekk jamono ji la moo xam club bi ñu bëgg a dem su leen neexee ñu xaatim pré contrat ngir bu saison bi jeexee ñu dem ca club boobe wala ñu toog ci club bi ñu nekk ñooñee nag mën lim Lionel Messi la poule ga N'Golo Kanté ba ca Busquets ak yeneen gone yu bari yoo xam ne jamono jii seeni contrat juróom benn weer képp moo ci des waaye bu leen neexee ñu waxtaan ak club bi ñu nekk wala ñu waxtaan ak club bi ñu bëgg a dem ngir xaatim pré contrat loolu la journal bi xamle ñu jugee marka yéenekaay javi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa jéggalul kenn moom Xavi ndax démbukat gone ya muy tàggat ca Barcelone mayut leen sax ñu dallu ci fête gi nga xam ne ci la ñu nekk ñëpp dem ca entraînement ba li ko waral moo di dafa mer ba futtu muy corriger gaañ ñi maanaam li ñu def bërki démb moo ko naqari lool ndax nee na Barcelone warul woon ak Espagnol de Barcelone dañoo waroon am ndam ca match boobee kon njuumte boobee la Xavi bëgg gone yi fàtte ko jëmbat ful la ca Liga Santander ba ndax ñoom li ñu bëgg moo di jël Liga Santander bi waaye journal bi nee na match boobee nag dafa tàngoon jër ki ko tàngaloon du kenn ku dul Mateo Lawas waaye fukki at ak ñett nag ci ginnaaw waa español de Barcelone amuñu benn poñ ca Camp Nou Sportif am nañu ko nag mu nekk poñ bu ama am solo ci club boobee di Espagnol de Barcelone ñu RT Sport jël Mundo Deportivo Laos ak Xavi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wo Laos mii beneen affaire la loolu la journal bi xamle journal bi nag ñëw na ci lu yaatu ci derbi bi doon am keroog samedi don dox ci diggante Barcelone ak Espanyol de Barcelone nee na ñëpp ñi naan lawas lawas waaye Barcelone nag keroog xar kanamam kenn xàmmewu ko ndax club bi doxul ci cëppaandaw ga nag match nii la ñu am waaye arbitre boobee di Mateo Lawas nag njuumte yi mu def bari na lool ndax match boobee bëri woon na ay carton jaune ndax lu ci toll ci fukk ak juróom benn maanaam seize carton jaune am na ca match boobee ak ñaari carton rouge loolee nag yombul lu muy am ci benn match moo tax journal bi nee na lawas beneen mbir la match ba tàngoon na jër loolu la journal bii di Mundo Deportivo xamle ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport José Mourinho la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa journal bi nag nee na waa AS Roma jamono ji li ñu bëgg moo di Mourinho letti leen wala mu firi leen ndax coow li bari na lool Mourinho AS Roma Mourinho équipe nationale bu Portugal coow loole la waa AS Roma bëgg mu dakk Mourinho wax leen lu leer day toog ca club boobee wala day dem ci réewam di Portugal tàggat leen loolu la journal bi xamle waa Inter it ñu ngi ci journal bi ñoom nag am nañu góol bu bees tàq ñu ngi tudd Vasquez gone gi ma nga doon góolu ca Colombie club bu ñuy wax Guarani gone gi na góol bu mën la muy def la waaye góol bu ndaw la nag li tax ñu jënd ko moo di seen góol bii di Mike Maignan ba léegi wéragut jamono ji li ñu bëgg moo di sàmm seenu ëllëg waaye yemuñu ca nag ndax Vasquez mii góol bu ndaw la li ñu bëgg moo di wuti beneen góol bu mag mu wuutu Malick Niang ca kang ya laata muy wér ba ñëwaat taxaw ci kang yi ci fàttali ñoom ñoo ngi bàyyi xel doomu Sénégal bii di Edouard Mendy waaye jamono ji daal Pioli li mu bëgg moo di ñu wuti beneen góol bu mag mu taxawaale ci kan ji laata may Maignan di wér waa Napoli tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom nag jóg nañu te fawuñu li ñu bëgg moo di jënd doomu Maroc bii di Azzedine Ounahi ma ngay football ca Ligue 1 bu France club bu ñuy wax Angers jamono ji waa Napoli fawuñu ci ay mbiram jóg nañu te li ñu bëgg moo di jënd ko yóbbu ko ca Serie A ba mu doxal ñu jugee Corriere dello sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello sport waa AC Milan la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ba léegi nag seen xel dalagut ci Mike Maignan waaye waa AC def nañu mbir mu doy waar ndax doomu Brésil bii di Angelo Gabriel moom sax la ñuy woowee le nouveau Vinicius gone googee daanaka waa AC Milan xaatimal nañu ko contrat li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Brésil yóbbu ko ca Serie A ba mu doxal waaye waa AC Milan yemuñu foofee li ñu bëgg moo dem ca Salzbourg jëli seen gone gii di Okafor Okafor nag gone gu mën la muy def la waaye waa AC Milan li ñu bëgg moo di bu ñu yeggee ci weeru juin jëli ko